looloo waral sa këyitu doom pare yow sa bos parewul comme que noonu la demee kon xale bi du fi jóge ndax loolu leerul léegi nee na moom euh, ba ñu demee ci biir ambassade ba ñu def loolu xale bi yëkkati loxoom du ko kooku wax mu ne ko waaw après si la ñu génn sama sœur na ne ma signé na signé na fa ay këyit waa ji am na yu mu bind ñu jox ko mu seen ndax passeport dañ doon defar léegi nag man tam nag ba ma ñëwee nag ba mu wax la ma daal di nangu passeportu xale bi mhm. ma ne ko yow nooy mënee sëyee kii légalement mhm. seen doom juddu ci buum nga ñëw war a lijjanti ñaari kayit yi lijjanti benn kayit kon xale bi du fi jóge ñoom ñaar wala ñoom ñaar ñu des mhm. dañuy mën a dem ñoom wala ñoom ñaar ñu des c'est la nag waa ji dem ba mu ñibbee na ba ñu toog ba xale bi def presque cinq ans si la maam ji woo nag sama rakk di wax ak moom di wax ma ba sama rakk woo ma di wax ma ko ma nekk ko loolu dalu sama xel ndax une fois papaam ñëw na si biiri sëy bien avant problème yi di am mu bëgg a yóbbu xale bi ma bañ si ni ngeen doxalee kayit yi kon bu la maama mu wooyee lii piège la mu ne ma déedéet maam ji lim ma wax ak jooy bi mu jooy te moom benn doom bi la am ni bët kii nekk sëtam xam naa li ci doom kon li mu wax dëgg la ma ne ko wóolu nga mu ne ma ne ko ah kon nag yóbbul waaye man bu doon sama sago dem waaye comme que noonu la demee kon nag na dem. situation bi ni mu demee ak fi may jeexalee mooy li ma dund ak xale bi dund ak yaayam ak papa xale bi sama biir kër samay dëkkandoo sedd ma gannaaw yàlla yonante bi dafa nekk lu set lu sell lu leer falaa ko teg teg si waa ji dugg ci moom ci dërëm ni dara ndax amu ko woon man li may góorgóorlu ak sama borom kër si leen doon dundalee ñoom ñaar muy waaji di sëriñ Saliou Lovis ak sama rakk Silla ci boppam ñoo la à maintes à maintes sama kër ma xamal ko ne ko dimbali sama rakk mu waxanteeg Saliou mu paas ko doomam xale bii ñoo vacances ndax ñun sama sœur amul doole boobu doole ñuy wax mais aveniru doomam moo ko gën a lu mu am te du ko xañ papaam ndax ñoom ñaar ñoo ko bokk mm-hmm. na toog foofu mu jàng am avenir mm-hmm. mais nee ñoo vacances di ko gis xam ne kii mooy yaayam ñii ñooy xeetam muy waxanteeg moom téléphone. ku ñu mën a dimbali nag te yàlla rek tax ba sama sœur di dégg doomam même bu dee un mois de vacances mu mën ko am loolu rek la soxla te yàlla rek tax du alal du dara ndax ñu ngi sant yàlla di féetewoo yàlla wéeru ci yàlla ci yàlla la ñu wéeru ndax yàlla mooy wéeruwaay bi gën a dëgër te ku dee bàyyi fi lépp. Euh, jërëjëf euh, ñu jaajëfal waa régie bu baax a baax euh, ci élément boobu gis ngeen ko la koy teel mooy avenir doomam na toog foofu waaye nag nay déggante ak yaayam xam ñan ñooy ay mbokkam xam itam ñan ñooy ay xeetam loolu la magam ji nga xamante ni moom moo leen boole woon yor moom ak jëkkëram moom ak sa rakkam ak jëkkëru rakk ji ñoom ñëpp mu bokk leen yor ci biir kër di leen jàppale di leen taxaw te fekk na boobu séntuwuñ ci moom dara ndax jàpp nañu ne daal tuub na te muy dëgg ci moom avant muy xamanteeg moom mën nañu jàpp ne tuub boobu du tuubu intérêt waaye nag euh, bu fekkente ni seen rakk itam bëgg na koo xamante ni euh, jàpp nañu ne dugg na ci diine ji mën nañ cee am rafet njort may ko ko loolu rek mooy sabab li nga xamante ni moom moo taxoon euh, diggante boobu nekk waaye nag bi ci doom sosoo gis ngeen ko jamono bi fi ñu toll yëf yaa ngi continuer di dëgër waaye nag uh, ànd ak lu mën a xew rek ni mu ko waxee rek uh, yàllaa fi nekk tey moo fi nekk démb te moo fi nekk ëllëg te nag uh, ku dee rek bàyyi fi dara kon ñu ngi jël lépp rek di ko teg ci loxoy yàlla mi nga xamante ni moom moo xam la mu namm ci ab jàmmam yàlla na ñu ko yàlla delloo silal mu déggantewaat ak doomam waaye ni ñu leen ko waxee rek ngoro gi am na fu mu jaaroon diggante bi am na fu mu jaaroon tuubu ki nga xamante ni moom mooy waa ji itam am na fu mu jaaroon ndax dem na ba Touba ñu tuubal ko dégg ngeen rek mbokk mi dugg wax démb ne na seet ci jëmmi sëriñ Saaliw mu fexe ba kii di déggantewaat ak euh, yaayam don euh, don yaay ji itam déggante waat ak doomam loolu ma ne ko war na ko mën a yomb ca na mu waxee ak na ñu jàppee ne noonu la yoonu États-Unis nekkee ci moom loolu yëpp nag euh, dañu dellu dañuy dellu rek di ko ñaan ndax ñaan moo fi nekk gum waaye nag du tey itam lépp luñ ci war a dox itam dinañ ko ci dox ba bunt buñ ci mën a am waaye nag la ci ëpp solo rek mooy li nga xamante ni moo ci war a rafet mooy que ne rek mu fexe ba mu déggante waat ak moom ndax ki fexe ba doxal ngoro fexe ba sëy am fexe ba nit ki jóge ci religion am dem ci beneen religion kooku am na ci yow poids bu toll ni xëy na peut-être bu ki dara desul dul ñaan njekk ak waxtaan wax dëgg yàlla nga war a mën a euh, ñaan njekk waxtaan te ni ma leen koy faral di waxee souvent rek poqataan jege naag mbagg waaye baataraw ñu jël mbokk mi ci ligne bi ba noppi allo waaw waaw. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. maa man Italie laay wootee. Italie naka waa Italie soxna si. Ah, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. waaw bu baax. Mm, waaw maa ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. émission bi kontaan nañ si trop. ndeysaan merci beaucoup. waaw yaa ngi jàppale nit moom bu baax a baax yàlla na la yàlla taxaw. ñu bokk ko. li nga bëgg lu ne yaa ko xam yàlla na ko yàlla jàppale. amiin amiin amiin saa su ne rek solution di am. waa dëgg la moom. affaire bi moom métti na trop mu waaye nag na góorgóorlu rek. ndeysaan yàlla baax na. waa yàlla na ko yàlla jàppale rek. allahumma amiin allahumma amiin. man moom mosuma woote moom heure bu ne nag maa lay seetaan nag moom si Italie nag moom. ndeysaan. <laughs> waaye mosuma woote nag moom. mbaa mbaa mbaa yéen a ngi waajal anniversaire bi foofu ca Italie. incha allah moom kay moom la leen jàppale ba mu <laughs> moom moom boo ñëwee fii dama ne sama borom kër jëndal jëndal lii rek moom ligne bi ndax am ko moom. ndeysaan laa bëgg. wax nga dëgg wax nga dëgg. maa ngi dëkk Mbacke tudd Maam Diarra Badiane. Maam Diarra Badiane depuis Mbacke Bawol. waaw Mbacke Bawol laa dëkk. waaw sama dëkk maa ngi lay nuyu bu baax a baax di <laughs> kontaan ci ba Maam Diarra Bousso. dëgg la soxna si yàlla na ko yàlla jàppale daal moom gis doomam ak jàmm affaire bi nag métti na moom doomam dafa neex ci xol moom. Mhm, mhm. waaw na ko kooku na sa yàlla tax rek ak sëñ Saliou san moo tax moom san mu baax ma nga xamante ni ñu ngi koy roy ba léegi waaw na na ko jàppale xam ne doom moom jigéen moom dafa bëgg doom surtout na yaay surtout comme dal ko ne dalay metti moom dëgg la na ko jàppale rek pour mu déggante doomam dëgg la dëgg la kay waaw ñu xam ne moom doom ñoo ko bokk jur mhm. kenn bañu sa doom déedéet papa jee yaay ji ñoom ñëpp dañoo lii dañoo juum rek waaye kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk sax da nga am ci moom waaw loolu la moom am na solo jàppalante rek am na solo xam naa bu ñu waxtaanee daal dinañ juboo nañu waxtaan dafa bañ a réeroo moo gën moo dëgg la dëgg la dinañ juboo kay nag bu am doom moom daanaka diggante bi moom juboo rek moo ci am sens ndeysaan la dëgg la waaw waaw dëgg la bu ne daal naa lay seetaan daal moom fi ma toog moom dëgg la dëgg la kontaan nañ bu baax a baax yàlla na la yàlla gënal jàppale rek émission bi dégg nga. allahumma amiin ñu bokk ko. <laughs> waaw dañ si bëgg yaa xam yàlla na la ko yàlla defal. amiin amiin nga tool daal ñëpp kontaan nañ ci ndeysaan merci beaucoup jëf euh, soxna si. waaw kon baax na. kon jërëjëf Badiane incha allah incha allah ba temps yi jërëjëf euh, Badiane euh, kooku di maam Diarra Bousso euh, di fekk baax ci Mbàkke Bawol waaye jamono bi mu nekk diwaanu Italie ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi Italie toog di ñu seetaan sama xel dem ci Fatou mu ndaw ma koy nuyu bu baax a baax Fatou Niang nekk foofu di doom ci Awa Dieng Awa Ba Dieng bu Caaroy maa ngi koy nuyu di kontaan ci moom waaye itam di kontaan ci képp koo xamante ni yaa ngi bitim réew di ñu seetaan waa France ma di leen bàyyi xel ko ci mel ni monsieur Sy ma koy ñaanal yàlla jàmm gi sax dàkk ñaanal itam ki nga xamante nii mooy Adji Savané nekk fële ca Danemark ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu communauté gambienne ba fa nekk yëpp maa ngi leen di bàyyi xel di kontaan ci ñoom buntu baa ngi noonu jaar leen ci doom dafa neex ci xol te it nag ku ñoon ku ne sa doom ci lu mu mën di nekk nga dégg ko waaye nag bu fekkente ni lépp dafa àndandoo tëju ba ñu jàkkaarloog doom jëne ko sa wayjur génn na àddina loolu dafa nekk loo xamante nii du neex ci xol te mën naa jógloo ku ne waaye nag ànd ak lu mën a xew rek ni ñu leen ko waxee yàlla moom ñëpp la fi nekkal te amaana incha allahu rabbi euh, dina ci taxaw ñu nuyu bu baax a baax nag euh, soxna ne ne li madame Silla ak ay njëkkam ay njëkkeem soxna Sourang nekk fële ca Touba ak yaayam mbayan ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu euh, di ñi nga xamante ni ñoom ñoo jóge woon ci kasu rajab gi di ñaan rek màggalu sëriñ Fàllu mu tedd moom nga xamante ni lu ko waay ñaan mu am ñuy ñaan ci kàttanu yàlla rek lu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñaanal itam ñi nga xamante ni ñoo dëgmal appel bi ndax wax nañ leen ko àllarba suba ak alxames diwaanu Cambérène ak Yoff yëpp da nga xam ngeen ni appel ba dafay ci lay am mu nekk nag jamono boo xamante ni euh, mbokk yeeg xarit yi ñëpp cee Yoff ak Cambérène dañuy ubbi seeni kër dalal gan ñi ñu jël mbokk mi ci ligne bi ba noppi soog a ñëw ci loolu alo waaw ñu ngi lay fay sama sëriñ. waaw di gërëm bu baax ci émission bi. ak sa taxawaay bi. merci beaucoup. di wax ne loolu sa war. Hmm? waaw. waaw ma ne doomu aadama yëpp yàlla da leen bind teg ay wareef ci seen ndodd. Hmm. ku ci nekk nag boo nekkee ci wareef rek alhamdulilah sant yàlla. ndax am ñoo xam ne nekkuñu ci seen wareef te jàpp nañ ne ñu ngi ci wareef. Hmm. te nekkuñu ci seen wareef dañ koo wàcc. am na solo man la tàmbalee ñooñu waaye yow nag yaa ngi ci da wareef li la war kon nag alhamdulilah sant moo gën leneen mënoon nañ la dégg ci yeneen wala di gis ci yeneen ak yeneen te amul benn njëriñ da nga yaakaar ne nag lu am njëriñ la nag ndeysaan te fekk boobu amul njëriñ nit dina def loo xam ne sax nit da ngay ay xale bu ndaw da koy toog di ko xool di ko mu ko di ko xale bi mën na ko doomam ndax lu tax te mm-hmm. lam nekk ak lam jàpp ne mooy àdduna ak topp loo xam ne doo ko dab mukk àdduna kenn du ko jot kenn du ko dàq kenn mosu ci am ndam déedéet kenn du ko dàq mukk ko ko waaw ah, te kum dàkk jot la kon nag alhamdulilah. alhamdulilah émission bi rafet na loolu ñu ngi koy rafetlu di ñaan waa jooju muy Silla aussi tamit mu dawal yërmande tuuti. Mhm. ndax dëgg la ñëpp ay jullit lañ. Mhm. ñëpp ay taalibe lañ. Mhm. rek lañ yaakaar moom rek lañ am. dëgg la tuub na ñu tuddee ko turu sell woowu aussi war na cee taxaw lépp lu man ndeysaan pour man ci sama dégg-dégg rafetul sax ñu du koy tudd naan nangam ak nangam ci lu mel nii. Mhm. te moom muy dégg te jéemu cee def effort bu mag a mag. ndeysaan donte na mi ngi woo yaay ak di dem ci ñoom di leen nemmi ko li ci ëpp solo mooy na ci def effort bu mag a mag a mag. ndax jigéen ñooñu tamit ñu ngi leen di sant ndax am nañu dal su doon ñeneen la ñu itam mën jaar feneen foo xam ne. dina war a gaaw a lijjantiku mais réew mi réewum sutura la réewum teraanga la. Mhm. réewum waxtaan la. jooy rek lañ koy war a lijjantiku moom lijjantiku ci jàmm ak salaam. jooy jooy nañ ba kenn ñu xam ne it moom sëñ bi ñëpp la boo ko jabootee. wallaay wallaay am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir ci sama bopp laa koy tàmbalee dañoo wàcc yoon jaar ci li ñu war a nekk te ay jaar la ñuy mbubboo ay sëriñ la mbubboo tur baax la ñu yor ndeysaan waaye léeg-léeg ñu wàcc yoon wàcc yoon googu itam ñu bu ñu gisee ku ñu jubanti itam alhamdulilah alhamdulilah da ko dimbali daal xam ne doom ji comme moom juru ko jigéen ngee ko jur ak xaritam boobu mm-hmm. vraiment mu def effort dont ne réew mi ak réew mooma soree na lool mm. te sax euh, famille yi euh, comme li waa waxoon démb rek lu ci bëri day làqatu ci biir loo xam ne duñ ko wax mm-hmm. yoo xam ne day làqatu ci biir même yow moomu duñ la ko wax duñ ma ko wax. dëgg la ñoom seen biir dëgg la ñoom ñu ne tamit am na luy tax ñu def loolu. ñoom mm-hmm. seen biir rek lay yem. Mm-hmm. ñu bàyyi fàtte li ne ci xol am na solo ñu fàtte li nekk ci xol yi jullit dafay fàtte ndax bu dul fàtte mën naa ñaaw kon yal na yàlla def ñoom ñépp ñi ko seq kenn ku ci nekk la nga ŋànk nga fàtte ko su ko defee rek eh, yàlla mën a indi jàmm ci li nga xamante ni mooy diggante bi mu déggante ak doomam waaye nag gis ngeen ko ni ma leen ko junjee woon sama biir émission rek nañu wax ci eh, li nga xamante ni léeg mooy sabab yu mel nii ndax bii moom bokk ci waaye dafa am ak njàngat moo xamante ni moom lañ ci bëgg a jëlee ndax itam eh, xale yi nit ñu weex ñaa ngi jóge